شيخ بيج موم لي نوي سيدي تي موم موم لا نيب سيدي ناخ كون خامنا ني مونيمون بو ماك لا وون تي يونو موريت ديم لا وون جو خامنتيني كيمان لا غوك تي كيمان سيرن توبا يلا بوك سيرن توبا دا فا واخون ني يالا داما جوخ لو مستا جوخ كين كو باخ كوما جيتو وون واخون ني له له خطابي قبل ربي هب لي ما لم يكن لصالحين قبلي ا ñëpp ñëpp dugg ci biir ndax lahu xitaab yi xablu rabbi habli lam yakun li qabli xabli képp ku ko jiitu woon tey ku baax ca aadama ba ci moom dugg nga ci biir ndax yàlla wax sax ni yonent yi ay saalihin lan yàlla wax wa zakariya wa yahya wa isa wa ilias kullun min asaalihina ci suratul anam kon loola mu amoon te kenn amu ko Cheikh Béthio lenn ci loolu la lenn la ci li Sëñ Tuubaa am te kenn amu ko ci ci ci fee yëpp nag fee yëpp côté yëpp côté yëpp Cheikh Béthio kéemaan la ci rawatina nag bis bi nga xam ni moom la Serigne Touba mas a ci nit dara suñ Touba damay wax ni musta sàkku ci nit dara mm-hmm. benn yoon la ko mas a def mooy bi mu woowee Serigne Balla Fally te mm-hmm. te ko suñu Ahmadou Diaw Pakha sultaanu mu ñëw mu ne ko koo xam ni sama mbég sa mbég la bu fukk ak juróom-ñett ci diggu gàmmu jotatee na nga ma sant la yàlla kon loolu la suñ Touba mas a sàkku loolu nag kenn koo xamante se ni sax nga nopp rek bu bis boobu jotee war sant la yàlla borom tubaa waaye li ci Sëñ Béthio doon def nag moom rek ko ci doon def fi mu ci moom rek ko ci ko ci yegg waaw ñun ñëpp ñoo ameel borom Tuubaa sant la ko yàlla ngir njukkale ko ko moom ndax lim nu defal waaye fi ci Sëñ Béthio yeggoon moom rek ci yegg. ñii mu meññ ay murit lanu waaw ay murit lanu te murit moom ndigal rek koy jëriñ waaw moom kay sant yàlla bi nga xamee ni ñoom li sëñ bi nekkoon njabootam gi tàmbali sëñ Sall Gueule Tapée ba ci suuf yàlla na yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi. bi nga xamee ni li sëñ bi nekkoon nampatal na leen ci ba lu sëriñ bi dig la ñu jëf ko yeex na loolu amul wax murit moom ndigal jëfe yoonu murit moom ndigal jëfe sax lañ mooy slogan bi ci gaa yi waaw